Ousmane Sonko daf leen traité de li nga xam ne moo di délinquant leneen nit mooy la sortie également de Bougane Gueye Dany qui se réclame justement que maintenant il se positionne comme opposant parce que maintenant il tire sur surtout ce qui bouge maintenant. waaw dafiy am ñoo xam ne seeni dossier daa nekk ci kanam te xam nañ ne dinañ ci dem. ah waaw te journaliste ñu toppee la. dafa am ñu dossier. ah non may ma rek du may wax waaye ma wax rek journaliste tey yéen da ngeen ba ca Amérique ak ca Canada. même bu dee Sénégal ak Amérique xaw nañoo niroo ci li ñuy wax secret de d'état ci côté defence secret défense xaw nañ ci bokk mais xaj na cana canadien bi gisewu ko noonu wala naan de ce fait que même bu doon da nga wax tey ci armée loo xam ne du yoon sax dana du ñàkk ay journalistes yu la jàppale. Mm-hmm. parce que ni ko Sénégal di gisee amerique di ko gisee man naa beneen dëkk gisewu ko mais lenn daal ci lañ tajane moom journaliste du ci jàppale moromam mooy nga détourné nga sàcc impôt. loolu mu am kenn ku ci d'accord moo tax bi coow li amee ci ñaari journaliste yooyu bindoon ay sos ci armée bi sosal armée ak ci kaaw Kandé dangaa gis bi ñu leen di woo nga gis euh, Bougane ak Madiambal yëpp kenn ku nekk def sa déclaration pour wane ne jàppale gi ngay jàppale boo ñëwee da nga nekk ci place kooku wala nangam te alors que yow bu doon jàppale nga yow sa journaliste ba muy ñëw am na ci koo xam ne te la jël Euh, directeur publication Tata boo xam ne euh, journal milliardaire kooku di jël Tata loolu benn la. léegi loolu mayuñ leen ko parce que dañu déglu ñooñu bi ñu noppee ñu dellu seen kër ñu xayaat woo leen pare baleen malgré loolu ñu dànkaafu leen kon amoo mayuñ la occasion boo xam ne danañ la jàpp foofu te bëggoon nga cee dugg léegi nag am na leneen luy am dama ne la fii muy kaaw may mën a nduur li mu wax ci Sonko wala sax ma traité ko li ñu wax ne moom la Sonko wax en tant que première ministre rek chef de parti gi yëpp Ousmane Sonko moo wax mën nga ko jëlee comme étant premier ministre kan la premier ministre wax ne délinquant financier bien sûr loolu la ki ñu ki lekk impôt ki war a fay impôt te mm. impôt yow da nga koo dajalee dañ la koo wax ne li ma Bamba di jox na la moo la ko joxal nga téyel ma ma jox la xaalis ne la joxal ma ko élément bar cent mille francs nga ne dëndeex quatre-vingt mille yi lekk naan ko dama koo nangam ak nangam ak nangam wala nangam lan la ab sàcc nga kooku délinquant la. Hmm. que premier ministre traité ko délinquant ma peut-être que ak keneen ak keneen benn la mais loolu délinquance la kii def loolu délinquant la. gisoon nañ ko ci jamonoy Wade ñu ne dañ leen a baal Macky Sall ñëw dañ leen baal te alors ko président de la république amul pour di leen baal amnistie fiscale ensemble ñoo koy def wala bokk sëñ euh, Thioune amnistie hmm. ensemble lañ koy defee. Hmm. kon ku ko mas a def tappale la. loolu la Ousmane rappelé dafa rappelé ne rien ne sera comme avant. du du nam daan demee dootu ñu demee mooy impôt dafa war a sérieux ci la taxé kooku de délinquant te ñun ñëpp war nañoo xam ne yow d' accord nga ne kooku kuy def loolu délinquant wala délinquant ah yow d' accord ne ki ñu war a fay kooku ndax délinquant la wala du délinquant ab sàcc du délinquant waaw dama lay laaj sàcc du délinquant délinquant moo xam la mooy bu yomb. mooy lan mooy délinquant mooy ku def lu yoon tere. waaw kon jeex na loolu lu yoon tere nag wala terewu ko. bat bat maa bee diis rek waaw yow waaw yow dama ne man maa ko ci teg ab sàcc la. loolu la Ousmane wax en tant que premier ministre Ousmane Sonko mu sell mi wala wala góoru xade doomi xadeeg ñëpp loolu lañ wax. du yëpp fa jaay loolu la wax te war na koo wax kii def loolu ab délinquant. ñu ñëw nag ci. nga jëbale citation li nga leeral li nga wax nii. ah citation. mais tere nga ah, kay ku def lu yoon tere. mooy loolu ku jël impôt ko sàcc. moo bee di moo Sénégal ñoo diisal moo rek. bu dee ma jàmbal daa jël impôt lekk bu dee may mun nduur dafa jël impôt mm. lekk. ak bugaan ay sàcc lañ saa wolof la wax de bu dee. wax na lu leer. Ah, dégg nga ah, voilà bu dee. <laughs> sorti bugaan bi waaw léegi. bugaan fàttali xaw ma safla soo ko fàttali loolu. kay ministre rek wala muy sëriñ imam bi xutba ci jàkka yi sax loolu la war a xutba keroog Sonko daa dem di xutba du nee na yonent bi la moo ko jàngal politique politicien bu mag bi yonent bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko jàngal politique te da daan xutba di wax ne seen deret euh, jaaduwut ci seen morom wala seen seen réputation ak seen nangam ak nangam mooy mooy loolu muy fàttali yon wax yonent yàlla Muhammadu la te in lu mu wax si borom ak ko wax la bu doonee sa royukaay daa taxawoon keroog ci minbar taxaw ci minbar weesuwut estrade estrade mooy minbar rek ca la taxaw jàkkaarloog ndaw ñoo xam ne ni am na ñii seen mag la ñii seen baay la ñii seen xarit la ñii ay compatriotes ñii ay camarades de parti am lañ mu di leen waar di waaraale lenn ci sénégalais yi di wax leen ko waxee na ko ca place ba mooy moytu leen ko wax yeggul ci waa Pastef ba ne nangam sax bay wax ne euh, ministre de la justice sax yónnee na ko nangam ne ko kii Pastef la bokk defal sa liggéey loolu ñen ñoo ko moom du waa Pastef am na loo xam ne waa réew mi ko wax wax naa ñëpp bu ñëwee ñëwaat ci wàllu mbind lu la neex bind wala nang mais ñi ñu tuun wax na ko da koo jàng moom lañ ko jàngal éthique ak déontologie éthique moom sa ndey ak sa baay ñoo la koy yare yar la ci dëgg doo fen yar la ci fit njàmbaar foo dem moom ngay kii déontologie nag mooy li nga xam ne tey métier journaliste moom la laaj nga bañ koo wàcc loolu la euh, Sonko fàttali kaw ne am na loo xam ne nii droit boobu yéen te loolu du tay rek Sonko waxu ko tay rek neen dafa am ñoo xam ne maanaam soit ñoom bu leen neexee wax ci ñëpp muy journaliste yi magistrat ma yeggal ko ci ak beneen bu mu fàtte sax wala bu jox bañ koo wax muy ak ñenn ci sëriñ si ñoom bu leen neexee toog ci seen minbar wala ci seen jotaay wax ku leen neex ci réew mi ak nuñ gisee te ñoom koo ci tudd wala nga tudd ne nangam ku ci def nangam ay bëgg doon wuri sarax. ba ci suñu jumaa ma ne fii àndu nawle kenn fii kenn ragalu fi kenn. suñu jumaa la jumaa yi dafa moomeel saa. waaw non loolu yàlla moom jumaa ñu ñëw nag ci xam nga nag nit sax dana wax naan seen jumaa jublu ci. jumaa ja fare fee mais mm-hmm. boo nee suñu nangam nag boo ko xasee waxee mm-hmm. yaa ngi dugg ci baatu moomeel mm-hmm. nit mën naa wax jumaay diw jàpp na ñoo ko moom rek waaw non non moomu ko nag moomu ko dañ koo dénk mu koy saytu non baal loolu <laughs> débat bi xam nga dama doon cof foofu rek la woon du débat voilà sorti bugaan bi euh, léegi sorti bi waaw bugaan bugaan waaw euh, déguerpissement bi du yoon parce que nit aussi boo ko yëkkatee war nga ko jox feneen leneen liit wàllum njëg yi wax na ne état bi def ci laj yi Euh, wàllum oto yi également góor xuma gis naa ko sax muy jéggalu ne moom mu ngi jéggalu kàddu mu yëkkati woon mu ngi tuub euh, naka nga ko jàngatee. mais déguerpissement xam nga Bougane dafa waroon a jël temps moom opposé wut de. Ah, man non non bu doon opposé rek. opposant bu am xel day def ni gars yi ponkal yi PDS wala parti socialiste ñoom taxaw ak ñooñu ñëpp parce que da nga war a xaar ba génnee ko jot mm-hmm. yow opposant homme politique kon bu ñu la joxoon réew mi yow nit day lal fu ko neex quoi man sànq nii sama xarit mi ngi ma yónnee léegi fi ñu leen dégër pire. Mm-hmm. li ma ko njëkk a wax mooy est-ce que maire la est-ce que gouverneur la wala mm-hmm. nangam mu ne moom maire plateau la. plateau waaw mm-hmm. tey tey mooy ji côté foofu. ku la wan image yi da nga xam ne fii. lii wax dëgg yàlla bi mu waxee dama ne ko ah lal fu dul yoon. léegi nag moom dafa am lu mu leen waxoon. ne leen da leen di defaral fee jot naa defar ay mille place yoo xam ne mi ngi defar li ci des. waaye dana woon leen dañuy nekk fii jusqu'à mu defaral leen ba pare mm-hmm. dèjà wax na leen lu dul dëgg kon bi lu mu leen yëkkati dafa waroon a fekk mu pare mm-hmm. xam nga waxtaan wax dëgg ci la mm-hmm. Modou Lo mu ngi ma ko yónnee léegi maa ngi fa war a jaar waaye ñoom it dama ne ko bañ leen tegee ci digg tali bi man de saa yu ma fay jaar sama xol danoon doon naqari parce que tali kenn du ko ah. baaree pour ni nangam su leen bëggoon a kii na leen wutal feneen ba pare woon ab tali kenn du ci bàyyi nit ñi. li muy metti metti mm-hmm. metti na. Mm-hmm. dañuy euh, compatir ak yéen mais te tee mm-hmm. wax leen ne fi ngeen nekk du yoon ma ne ko benn muy nekk maire yi d'arrondissement wala maire de la ville bu mu ci mën a nekk yellu na ci moom bu ko neexee mu yëkkati leen. waaye mu ne ma police sañ ci ma ne ko ah mais dafa police bu ko maire yi woowee ci dafa war a yëkkati police dafa war a ànd ak ñoom. loolu mooy wax ci état it ministère mënoon na def arrêté it. ne da mm-hmm. ngeen di jóge fii mm-hmm. cadre léegi. mais bu ngeen xasee xam léegi bugaan buy wax loolu yow. kon boo jëlee woon Sénégal yow nit ñi ci ci. acharnement nga leen di yore acharnement. ci loolu nga leen di yore. loolu mooy acharnement. voilà a position rek. waaw non pour ma woon la ne bugaan waaw non may ma moom mu ah mais boo nekkee politicien mais danga war a teg xam nga Sonko fan la leen raw mooy day teg mbir mi ci dëgg. daf la yàgg a wax dëgg taxawut fii dinaan la lii laay def ñëw di def leneen xam nga bugaan nekkoon Walfadjri créé fa syndicat nga jiite sa këru liggéeykaay bañ syndicat hmm? kon da ngay xam du nitu dëgg nga bu dee lii dafa baax këru liggéeykaay daa war a am syndicat ba nga créé ko yow boo créé sa entreprise yaa leen war a njëkk a wax former leen syndicat wala si dee moom euh, c'est anti démocrate loolu mooy wax ji beneen bi nag mooy dégg naa benn soxna buy wax wala benn dégg naa benn journaliste buy wax am na ci ñoo xam ne ñu ngi waaj a am dossier dafa am ñoo xam ne dañoo jënd télé boo xam ne ci ñeneen lañ ko jëndee woon te fay nga am nu mu demee te mbir mi comme Macky Sall la ngi fi woon la indi woon aadama fay nga plainte ko mu toog ñaari at ngay jotaat ñuy ba nguur gi changé nga jàpp ne yoon am na nga doog a dem porté ko plainte ak Doro gay nga porté woon ko plainte mbir ma mujjut fenn nga doog koo yóbbu da cee am média yoo xam ne mm. nañ ko amee daa xaw a doy dañoo jënd yi fi jàmbur te nañ war a faye wuñ ko ba fi ne nii ñu ngi ci waaru yoon te dossier baa ngi waaj a génnaat léegi bu dossier bi génnee ma ne bu dossier bi génnee <laughs> nga ne Ousmane Sonko nekk ci ah, ginnaaw waaw ah, déglu ma rek ah, en tout cas tele la boo xam ne ka ko moomoon gaañu na ay doomam donn ko ñoom ñoo ko jaay léegi nag kañ ko jaay moom déedéet benn baas la benn baas ban fan lañ jaay benn baas ay doom dañoo jaay benn télé bi doon yéen yow kon xamoo li xew de <laughs> amoon na politicien boo xam ne dafa amoon télé. am na benn booy Mouhamed Diallo mii sax télé boobu xaw na faa jaar. Ah, yaa ngi comprendre. Ah, ah. ban télé la waxal. <laughs> ba ma waxal mu leer. voilà dossier boobu. dossier boobu. mi ngi waaj a suli ban la dossier boobu mi ngi waaj a ci kanam. ndax ñoom hmm. dañoo soxla seen alal. te jaay nañ <laughs> révélation la. révélation révélation la. Eh, xam nga yaa ngi nii wax waxu portable yaa sa portable jur. te mu nekk WhatsApp la nekk nii. parfois nag man yenn ah. yenn kii. cun <laughs> xam nga ko quoi la nekk nii sàng bi xam nga ah, dafa yomb quoi xam nga tey. presse tey daal ne Sonko moo nekk ci ginnaaw mm. affaire bi dafay yomb xeex quoi mm. daal ne voilà moo nekk ci gars yi dooleel leen xam nga fii cun mii la nit liggéeyloo moom it. non loolu jeex garaaw la ba ba dama ne dañ koy wax. <laughs> danaa ko wax bu ma bu ma <laughs> ko bos. waaw ko danaa ko dama ne la. maanaam pour wax la ne sànq sax bokk na ci li wax. fàttali day jariñ jullit. Ah. dañuy fàttali ba ma bu ma <laughs> ko bos. gaa yi war a aar ndax bañ lay woo ci tribunal di la fa yàggal. Hmm. ah mel na man maa la fa doon fekk ak ñu néew yow ak sama jigéen boobu. waaw ah, jeexagul ah. war naa demaat mercredi ah waaw kay. kon loolu tey keroog aljuma daal la benn waay woo ne ma. wuy jul nekk. négal <laughs> Moussa Lamine daal di ah, mu nekk ma waaw waaw baal ma wax ko. waaw léegi. liggéey loola. Hmm. yow nga war koo yóbbu ci yoon. yow nga toog fenn wax sa situation. ñu porté la plainte plainte porté wala journaliste bu jigéen boobu nga xam ne gaaw a jaaxle ndeysaan bëgg a dee soxna soo fa la doxee bàyyi journal léegi mu ngi ci wàllu teer ndax tiit xoolal ma lii ñu tiital doomi jàmm <laughs> parce que lan da am ay càmmiñ ci gouvernement bi am ay xarit yoo xam ne lu ñu loo mën a def génn ci. Mm. loolu rek nga daal di yëkkati sa doole te kat du wuy si de dala fay bàyyi nga fay waye di ñaata yoon lañ leen woo ngeen. moo tax ñu hmm? déggoon fi kaa farba yeeg yooyu sax. waa waa waaw euh, brouette ak yooyu. yaa ngi may dégg xam nga yu demee noonu jaay doole. te ah. jaay doole baaxut Youssou Ndour ko wax. Hmm? comme dañoo amoon ndey. état bi maanaam boo masaana porté ñi jegee ci ñoom boo porté plainte du mujj fenn ki leen porté plainte dossier bi du mujj fenn mm. te yow boo porté plainte ñu jël si waa ji mm. di ko faaj faaj looloo taxoon lu waay neex def jamono yi nag nit ñi dañoo am yaakaar ne mm. eh les les victimes de Johnny Doe yi moo parlé sama xarit boo xam ne fi ne dossier bi xam nga yow weesuwut tamit ba foofu ah, ay ka man ma man mais foo ngay noppalu nag que fu ne ma seen la ah mais dama ne <laughs> dama ne déglu ma déglu ma da nga maa bëgg a jariñoo yow képp. fay leen fay leen ma 1 million. ma ne déet fay leen ma 1 million. fay leen ma 1 million déedéet déglu déglu ma rek dégg ya yaa ko wax dañ ko yegg fay leen ma 1 million. ma fixé fenn. ma fixé fenn. man bañ ma bëggee fay 500000 pour deux émission par par par mois bëggoon maa noppiloo di ma wax loo waxu culture damaa lànk. jërëjëf déglu ma ba damaa pareegul yaa ngi dégg yow dama joxe révélation di pareegul ah, doo may ah. yaa ngi dégg. ay victimes jooni jooni moo parlé tegal ma lépp AZ ba di leen wekk ci banque conseil juridique ba taxawoon naan banque bi moom moo leen yow koo xam ne yaa def say publicité. biñ ñëwee ci yow yaa leen yóbbu ci boole leen ak banque ne leen dee leen versé fii am ñoo xam ne dem nañ ba wóolu wu ñëw yaa daan ñëw jël xaalis. dugalal leen ñëw jox leen 3 millions ñuy fay ba affaire yi di am ñoo xam ne mujj gi ñoo xam ne bi ñu demee ba seen xaalis dem ñii 10 millions ñii 9 millions am ci ko xam dafa faatu xaalis sama ngi bloqué ba nëgë ni euh, njabootam jotuñ ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne danañ ci ñëw. parce que nag affaire yi. faaw hmm. ñu jël ko pe mais bëgg koo jël wut bu commissaire Ousmane Sonko yaatu na dënn lool weexu na donc trop waaye bëgg koo gàcce du fi amee. ça ne passera ah, dafa am lu ko lal opposition bu am xam-xam bu xarañ bi xam nañ ne jamono yi du moment wu. Hmm. moment bu ñuy. Hmm. kii parce que bu dee wàññi bu dee yokk ñan ñoo ko yokk. ñi fi jóge ñi yokk buñ dara non non non dinaa ci wax état de grâce boo xam non non état de grâce sax defaguñ fi loo leen xeebe ministre yi ñu ngi ci li leen war ma Bouba Diagne il est sur le terrain mm. El Malick Ndiaye gis nga lim fi def bu yàggul mm. ak yooyu yow nga daal dem safoor yoo xam ne ñu ngi leen ñëw taxawal ñu wàññi euh, ñu yokk paas bi lañ yokk man maa ngi défendre safoor yi parce que man jàpp naa ne bi ñu doon dem bu ñuy safaat di ñëw vide la ñuy ñëw mën naa am man naa am nga yab nga teg lu yem te noonu la ko ministre bi waxee ngeen lànk jaay ko doole génne seeni biis moom mu indi ay biis tey loolu dana wane ñeneen ñi ne ku ci bëgg a rëngum ak état état daa am doole loolu tax état bi war a fàggu ci yu baree bari mu am ci ba desal boo ñu naree wañ suñ loxo ñu ñëw teg ngir yi affaire yi mu demee noonu ginnaaw xam nañ loolu yow boo dee bëgg leen naan da ngay dem di kii seenub jaaxle ñoo ñoo la gën a xam ne newuñ ci yoon léegi nag état bi nag bu fexee beneen bi li El njaay wax am na taxi yoo xam ne ñu ngi ko jël wàññil ko chauffeur yi wala entrepreneur yi pour ñan la du chauffeur yi ñu jëlaat yeneen i biis euh, yu ñu war a indiwaat pour lan la du sëfoor yi soo wàññee essence bi te war nañ koo wàññi pour lan lu du sëfoor yi kon bëgg leen a jaxase sëfoor yi bu leen nangu benn saytaane di leen jaxaseek ñii mm. man keroog bi ma benn taximaan mm. sëfee bi ma ko laajee ne ko lu ngeen di grève mu ne ma ma ne ko état buy doog falu xam ngeen ne leen naqari ñi leen ko teg ma ne ko bu ngeen di doog falu ngeen kaas bu ñu leen satisfaire ñeneen dañuy jóg stratégiquement sax su ngeen kii bu ñu leen waree na satisfaire léegi léegi le fait que ngeen jóg di kaas duñ ko def li ngeen di kaas yëpp dëgg la mais dafa am fu ngeen koy waxee dafa am nuñ koy defee. Hmm. en tout cas góor nii la euh, ah, bien sûr parce que non non ku raisonnable la xam nga wax ji ñoom xam nañu ne ñii hmm. ñëwuñu pour xeex leen wala dara dañoo ñëw pour ñongal secteur yëpp sénégalais dañ ko Sénégal dañ ko war defaraat kenn ku nekk gis sa bopp hmm. léegi yow boo amee xel da bàyyi ba fii ñaari at peut te ñi ñetti at sax lu tax nga am loo leen opposé parce que feeg yaa ngi def li ngay def ci yoon def transparence teg li ngay def ci dëgg loolu la nit di opposé léegi nag nit koo xam ne day xalaata am dossier ci kanam nag mm. bokkut ak beneen opposant bu dul am dossier opposant bi am war a am dossier day daal di provoqué coow li comme ça coow li bari dëgg réer lii dong moo leen lii dong nga leen jàpp maanaam meedu leneen mais bu dee Ousmane Sonko dafa wax li mu wax yëpp dëgg la war nga koo wax keneen ak keneen war na ko merci beaucoup ça euh, euh, ñu ñëwaat ci Thioune ñëwaat également ci voyage bi nga xam ne euh,